te lijjantiwuma la yow. compétition nga bëgg yow yeneen cinq animateurs lijjantiwuma leen yéen. ah waaw. <laughs> maa ngi tam kii daa dër di leen wan xanaa bu laaj bi sotoon mu rey leen. <laughs> <laughs> lu xew gànnaar ban la xew gànnaar ka dem moo indi suñu xolu bu mën ak yéen. Ah. ndaw sa dem na. Euh, jaay njëndum portable ñu piégé ko yóbbu ko ci néeg sa ko too ko violé ko doo pare dóor ko mu jële ci ëmb. waaw mais am na ñu ma doon laaj ñu ne ma ñi ko def loolu. waaw ay sénégalais la ñu ne moom. Mhm. wala ay ay ay ay doomi réew ma lañu maanaam ay mauritanien lañu. waaw nee na ma am na ñu ci doon wax wolof xam nga fii am na ñu nekk Mauritanie ñu dégg wolof. ñu mhm. dégg ay ñu dëkk mhm. Mauritanie. am na am na ñu doon wax wolof waaye ñooñu nee na foofa leen dëkk waa Mauritanie. waaw mel ne olofi Gambie. ah xaw ma de loolu daal la ma expliqué. te nee na Gambie moom mës a wax ne ma ci télé bi nga gën a duuf. ci te <laughs> damay wañax tur bi parce que Gambien la bu ñu xam. noonu la ma ko waxee de. ci télé bi nga gën a duuf. xam ko la la xool naa la jiwaay Touba <laughs> déglu déglu ndaw si Ndiaye. wallaahi la asi xool bu naqari laa àndal boo xamante ni su ma taxawee di ko nettali nit sama xol day jeex tàkk gis nga yàq ëmb bi ma yàq ëmb loolu daf may gën a tourmenté ci sama xel di ma gën a metti ci àdduna moo nekk noonu. wallaahi la an ma feebar ci sonn ci jaaxle lool te lii musuma ko dund fii laa ko dundee te am nañ bëri nañu koy dund fii ñu xam fu koy ñëpp ay egg sama kaw nañ ci sol préservatif am nañ parce que ñu ngi may dóor dóor béykat yi ma ne na ko defee toog naa ñaari fan xëyuma ndax yaram buy metti sama kanam gi suma ma tuuree ndox damay mel ne luy tuuraale ay deret barke alxuraan karim ma jële ci ëmb bi ma ci jëlee ëmb noonu fii moom xam nga rek soo fi waxtaanee ak kii ñu miin fii ñoo ma boole ki nga ñoom ñoo ma ko yàqal wallaahi parce que tey gàcce googu noonu fan laa ko doon jëmee ak bu waa Sénégal déggee ni man ëmb naa kon dañ naan kii kat jugul woon pour liggéey dafa jugoon pour taxawaalu rien que ni xamuñu lii nii fan lay jugee ak fan la jugee te fii du man rek maay dund loolu wallaay la azim fii sénégalais yi dund lu mel nii comme soq bu tuuru comme soq bu tuuru fii sénégalais yi dund lu mel noonu parce que fii dañu jàppe ni sénégalais ni moom moom daa jaam la xaw ma qu'est-ce qu'il y mais wallahi la azim parce que am na benn nit ki ma wóolu waxoon moom mu ni ma fii danga xamul fii rek fii ñu fii dund lu mel nii bëri nañ am pataay six personnes la six wallaahi mënuma la wax lan lan yàlla xam na ko toog naa ay fan boobu noonu mënuma fexe ba liggéey ndax yaram buy metti ndax dóor ma doon dóor wallaahi na azim ak xëy na bu dul sax mën naa ko muñ ndax sëy naa dina di forcé mais ma doon dóor moo jàpp sama yaram ba ma toog sama kanam gi ma ñëwee walaay la azim ku ne ma yow moom lan la ma ko tey de doon liggéey damay doon ménage tarxiis foofu laa daanu moo tax sama kanam gi def nii ndax am na xol xol ñoom bu paree ci lañ ma ne génnal nga dem génnal nga dem ah lii doy war de mi ngi noonu te lii ma ci jaaxal euh, di dem bi mu jàllee am na ay ñeneen ñoo nekk foofu ñoo ne ni ndaw si wax dëgg la parce que am nañ ci bari ñoo xam ne dañuy dund loo xam ne foofa suñ demee ci yoon it duñ ci duñ ci am ndam dañu mujj rek daal di noppiwaaleeg moom noonu dañu mujj noppiwaaleeg moom donc. Euh, mu ngi noonu daal. na ci mais li may faral di wax baan mooy faral di ñëw rek. Uh-huh. nit da ngay ñaaw njoxt. Uh-huh. jënd nga téléphone ba nga koy jënd boromam ci marché nga ko fekk. Uh-huh. téléphone ba ma ko. soit nga fekk ko baa nga bàyyi ba mu libre nga dem soog a jël téléphone mais fekk ma sama kër. ma jox la ma ma changé le bi. loolu moom confiance sax warta egg foofu. ah loolu c'est que nag xam nga sooy dem ci kër nit nag na dem ba wóolu ko parce que fi mu nii maa ngi xalaas boo xam ne gaa yi benn benn femme la boo xam ne daal xaw ma day daal benn femme daal boo demoon euh, nekkoon ci benn milieu waa ji ne ko nen dem sama kër xam nga mu bañ mun ko noo nax ko ba yóbbu ko këram dóor ko ba fóotul koy sagaram nangu greffage am yére yi nii da koy taal xaw ma daal xaw ma lu ñu jotee affaire histoire bu doy waar la. Mhm. ki ko def loolu homme de tenue la. Hmm? Hmm? waaw ndekete. ndaw si yuuxu dem dem ba fexe su guddi gi ba asamaan set ndaw si fexe ut yoon ba daw ñibbi mhm. dem woo beneen xaritam di ko nettali li ko waa ji def ndaw soo su ma koy nettali yónnee ko ay photo ki image ni ko bërki dem man la ko def hmm? waa léegi nag enregistrement yi yëpp du interviewé naa ko yëpp mais nangoogul mu jàll te xam nga mbir moom bala muy jàll il faut mun la tegal hmm. léegi nag jox na ma contact takk der boobu ba ma yónnee ko takk der bi interview bi takk der bi gis naa dem mu may wo ay quatre heures du matin man ko nag wàcc naa damaa wàcc bàyyil boo suba <laughs> waaw quatre du matin la ma woo bi xam naa dafa déglu affaire bi ne ko nag dama wàcc samay xarit ngeen nag mais nag du ma nangu ko xam ni du nekkoo ci yoon. injustice kay injustice la da ngay tilimal corporation bi mm-hmm. da tilimal liggéey bi c'est ça. oh mais non bu fekkee naan nga ko traité déglul takk der bi rek. parce que yow version ndaw bi nga ndaw si nga di. du mus a wax. waaw mais non waaw du mus wax ci ci ci micro. d' accord naa mais mën na la jox version par exemple. voilà non voilà wala ma jox ko ay ay seefam rek. fu ñu jëm. Hmm? waaw affaire bu yéeme la du affaire bu grand bu ndaw ndawaan de. bomba claque la. li gars yi naan bomba claque. dégguma ci genn kilifa guñ ne dafa sàggane boppam ba ñu filmer ko yaramu ne. waa dégg naa ko de dégg naa ko dégg nag laa ci am. kilifa lan. bon ci ci ci kii bi quoi ci. ci bi rek. non du kilifa diine de. ah ok autorité quoi ci. Ah, ok ah. ok ah, mooy doon euh, wax nañ day may oto ak. xaalis bi ñu bañ ko voilà kooku lañ jekko. Hmm. yaa ngi takk masque yi. man si. yaa yaa yaa nga ca mbaa. Hmm. maa nga ca waaw. waaw nit ñi ma xam ne ñan ñoo ma soof. Hmm. xaw ma ay activiste lañ tuddee seen bopp xaw ma. ñi nekkul bitim réew. yow nekkoo Sénégal yaa nga Europe wala yaa nga Amérique wala yaa nga Canada ak foo ne. geste barrière ya nga xam ne waa réew moomu teg nañ ko yow njaay yaa nga fa yaa ngi ko respecté à quatre cent pour cent li tubaab bi santaane da nga nekk dëkk tubaab bi ñi mi wóccee bañ a def dara ba pare ne ci internet bi ne ci facebook bi di influencer waa Sénégal naan leen li leen gouvernement Sénégal teg dafa mettek bu leen ko nangoog lii du yoo nag te yow yaa nga yaa nga Amérique lépp waa gouvernement Amérique teg yaa ko respecté ñi mu woo génn dox benn mètre te takkoo masque wala ñu woo génn manaam lañ fay tere nga koy def. Hmm. pourquoi nga bëgg ñoo teral ñun li ñu li sunu gouvernement teg fii nga bëgg ko bañ loo nit ñi. ba pare di ci def ay live ay sénégalais yi nekk fii ah xaw ma dañoo sol moo jëmale kaw di la jàpp di la jàppale ci loolu ngay wax. lan affaire lan la ñuy wax. maanaam affaire corona bi comme daal su état bi tegee ay mesures nii. affaire feebar moom euh, baan ku dul médecin. waaw wala maîtriser woo ko waroo cee wax ngay activiste ak ngay nekk parti au pouvoir nga nekk opposition c'est que war a dimbali nit ñi bàyyi médecin yi wax la ñu war a wax ñoom ñu def lan war a def quoi. nga am na koo faral faralal kooku mais feebar bi feebar la du feebar gouvernement. loolu feebar opposition waaye foofu mu leer leen ñoom ñëpp mu leer ñëpp ñu xam ni feebar bi du feebaru euh, Macky Sall wala feebaru Sonko wala feebar la bu dal waa Sénégal nanu àndandoo ñun ñëpp xeex feebar ba pare soo a xeexandoo après ñu kon ne xeex suñu. xeex loolu nag moom mooy. xanaa gisoo ci football bi football bi ñëppay def live de. Aliou Cissé <laughs> Sénégal da gisoo ci lenn lu dul wax ci feebar bi lañ nekk parce que baan yow lépp la ñuy wax baan yow neexoo waxtaan yow da ngay <laughs> takk masque tekki bi football teg bal bi dugg ci c'est-à-dire wax day am chrono. non non dama non non dama la bëgg a xamal. parce ci masque ma am lu ma ciy wax nga jóge ci masque. ma ñu non exact ma la fi fekkoon eh, yaa ngi ci ngem bi mbër yi. no non non non non non soo ma soo ma suivre. <laughs> soo ma suivre di nga xam Jaga Mbaye nee na yaa war a wax yaa saf waru tax loo xam. soo ma dégloo ma xam mën a comprendre yow ci activiste américain nga déparé waaw déglu ma rek dal ci masque yi déglu ma jóge ci masque yi dal ci Aliou Cissé yaa nga ci Modou Lo déglu ma léegi ñun ñu bëgg laa topp ñun topp la topp la topp li ma bëgg yow yaa raw activiste ma rek non non man nag nag boo ma boo ma comparé ak yaa leen raw. maa leen raw. <laughs> ci lan ban <laughs> man li may li may li may bëgg li ma bëgg expliquer foofu mooy. sénégalais li ma bëgg a wax mooy événement bu xew ah <laughs> ñoom ñoo ci ëpp xam-xam waaw <laughs> ba Coupe d'Afrique bi da xewee da ngay gis ku nekk génn ñëpp nekk ay entraîneur corona bi ñu xew na ñëpp ne bëgg a nekk ay docteur ay ay spécialiste loolu laa bëgg expliquer moo dul yoon li nga laaj mooy lu tax ñu nekk Amérique waaw bëgg de ba maanaam Europe ñeneen bitim réew rek bitim réew di defloo sénégalais yi lu dul def waaw da nga laaj bi kay mooy lu tax sénégalais yi nangoo def waaw ah. loo xam ne ñeneen koy loo duñ ko def voilà kay mooy laaj bi ki tekki loo masque te moom ma ngay takk ma ngay takk masque yow ngam nangoo tekki sa masque c'est ça tey di ko corona doo ko jege te bu ñu jaawale nag gis nga système de santé yi nekk bitim réew waaw bokkut ak yi nekk fii Sénégal hmm. ñoom ña nekk foofu noonu ñoo mën a takki masque nekk Afrique kon jeex na hôpital ba nag liñ jëm ginnaaw ñoo ngi ci hôpital <laughs> kii dafa yóbbu mbokkam hôpital di wut ay analise ak kii kii am benn waay boo ko kar ne ko kaay jàppale la yéeg wàcc yéeg wàcc récupérer xaalis baak analyse yaak quatre-vingt mille yam yoroon ak yëpp ni ko da koy jàppale ni fees hmm? see ci hôpital waaw ban wala bëggoo wax Dantec la Dantec la ah, Dantec la waaw waa hôpital ba defuñu dara mais waaw ah, pour ñu xam ne loola am na fa waaw waaw hôpital yëpp nag gars yi dañ leen di rax am na ay Mouhamed Ndiaye fuy dugg di encaisser xaalisu malaat yi naan leen dama leen di jàmbal jàppale dama lay jëndal ordonnance nit see xaalis ba ñu dégg Mohamed Ndiaye. Oh, oh, en général noonu la ñuy tudd. nañ déglu. <laughs> dafaa yóbbu woon sama mag démb. fi ñuy wax Oumy Amar léegi dënn bi fa woon opération euh, pour cardiaque. nees nag mu dem ba cancer bi yëngal ko nag ndax wéroon na sax moom yàgg na waaye yenn saa yi da kay yëngal bu yëngal ko nag mu ñëw ma yóbbu ko hôpital Dantec démb. ñu bindal ñu daal kay bindal rajo ak analyse. rajo scanner ak analyse ne ma boo xëyee nga ñëw mu def si ko bindal ko ordonnance ñu jënd ko day mel mu daal di tane bi ñu xëyaatee katar yi ñu yeewuwaat demaat hôpital daan teg ba ñu demee léegi ñu daal jubale jubali fa ñu rangi analyse ñu rang analyse man ma daal di jubali ca kees ga daal dem rang pour fay ma daal di ca kees ga fa fay analyse 15000 delluwaat léegi bu ma delluwaatee. daal di jël kayit yi di wut si rajo bi bi ma ñëwee wut si rajo bi ma laajte ci bâtiment bi ma jëkk a jot kooku na ma du fii de maire génnal ma génn mu ne ma fële ngay jot la xam fële ngay séen la bâtiment ba la nit ña taxaw ma daal ne umu ñëwoon dem maire bi mënut a dox bu baax ma daal koy jàpp na ko ñëwoon dem ñun ma waax may waaxu du dem ci la ma benn benn waay bi daal di dabe daal di may da rek daal na ma mais nag mu ne ah mu ne ma yaa doon laajte rajo bi ma ne ko waaw mu ne ma indi kayit bi ma ne ko ah mu ne ma ñëwoon dem ma lijjanti la ko ndax mu gën a gaaw ma ne ko ah mu ne waaw ma daal topp ci moom ñuy dox di dox dox ba yegg sa rajo ba mu daal dugg daal di ki ki ki ki kii def rajo bi ma ne ko yow de démb yaa boo defee analyse bi da indi kayit bi mu ne ma ah kayit ba nekk ni ma ko waaw kooku na ko waaw mi ngi noonu mu daan ne mu daan ma ah, des na de beneen boo war a def bu 2000 bi de defoo ko ma ne ko ah mu ne ma ne ko des mu ne ma waaw kooku daan ma waaw nan dem kon nga daal koy def mu gaaw nañ dem ma dimbale la foofu ñu daal di ànd dem ba ca kees ga ma defaat bu 2000 boobu daal di koy fay 2000 mu daal di jël ticket bi ñu ma jox daal ñetti ticket ak ak kii bi analyse bi ak ak ak rajo bi mu daal di piqué ma seen nga ko nii bi ma la defal 2000 teg nañ ko ci man ko waa gis naa ko ma nañ dem nag léegi dama la bëgg a dimbali rek pour yow nga daal di mën a lijjanti maire bi essence man ko essence ah, mu ne waaw man ko acca ah, bisimilah man ma nañ dem ñu daal di dem ñu dem demaat foofu mu dugg ci biir ne ma taxawal ma dugg mu daal dugg xawma lu mu wax ak waa rajo bi xam naa waxut ak ñoom sax na ñoom xëy na xam xamuñu ko nee gisuñu ko mu daal ma léegi ñëwoon dem ca ma fële taax ma fële foofu lañ koy defaree ci foofu bu ma demee ci masoor bi mën na koo daal di def urgence waaw ndax maire bi yëpp am lañu war a lijjanti tey ba jël si ay résultat doole man ka loolu ma nee nekk baax na daal di ci moom yéeg ba ca kaw na ma taxawal ma taxaw mu yéeg ba daal di wàccaat boobu këyit yi rek la yor yoolu jëlagut xaalis bi wàccaat ne ma masoor bi nee génn waaye mosoor bi nee ma soo ñëwee indi carte d'identité bi ak xaalis bi léegi ma lijjanti ko ma ne ko ah mu ne waaw ma daal daw jëli d'identité bi daal di indi mu ne d'identité bi nga indi ma ne ko waaw mu ne ma xaalis bi nag ma ne ko xaalis bi kay indeegu ma ma demal jëli xaalis bi dawal nga jëli ko parce que du xon dem ma daal daw ah, ma ne ko nee na nga indi xaalis bi sama mag daal dindi xaalis bi daal may jox ñu daal dugg dugg ma indi indi fekk faram nii boobu nag sama bopp baa ngi indi indi ma kay jël daal di koy wàññal ba mat ma daal ba koy ba mu mat ma vingt quatre mille lañ koy wax xaw ma fukki juróom-ñett fu ko di waxe noonu lañ koy waxe fukki juróom-ñett laa ko mën a waxe yow daal noonu la ma def mu daal ma jox ko ko mu daal ci kaw na ma toogal noonu ma toog ay neuf heures presque la ma boobu ma xool boobu dix juróom ma di fa toog ba mi di maye mi maye ma daal di jóg daal di daal dem ca balekat fekk nag bi ñu rombee balekat bi ah dina na téeméer bi daan na ma balekat yi de seen fay ñun ñu dimbali ma ne ko ah man ma waaw man ah loolu de baax lañ leen di fay ak ay 30000 xam nga loolu baaxut ci borom kër ma ne ah, waaw waaye nag soxla yi moo bari ma daal dem ca balekat ba ne ko waaye bu ma toogee ba mu yàgg gisuma ko ma daal dem balekat ba ne de ki ñëwoon fu ma jaaroon fi yow fii ba may la si téeméer mu ne ah ma ne ko man de moom laay seet ndax yoroo numéro waa nga xam fu mu nekk nga wax ma ci dara mu ne ma yoruma numéro ci xaw ma fu mu nekk waaye nag ci hôpital bi lay liggéey ma ne ko man dama koo joxoon samay kayit doon ko ko lijjantiloo tudduma ko sa xaalis bi ko joxoon samay kayit doon ko ko lijjantiloo ba tey gisuma ko mu ne ma léegi dama toog fam la toog loo woon nga toog fa xaar ko di nga ko gis ndax ci hôpital bi lay liggéey continuer daal di daal di dem ci médecin bi te daal di ko koy wax fi fi ma wax ma àndaloon fii dama may lijjanti tëriyaane dama yóbbu na sama xaalis ñu ne da nga ma ne man kay xuuma ko waaye dana moom ma ma ne ah moo man ba ma koy def sax booba de man ma nekk sama bopp baa ngi bëgg a toj ñu dem ko ñu daal di ñëw ci buntu la daan teg daal koy wax ñu toog foofu loolu moom mooy mooy seen wàll moom loolu la ñuy siifoo mu daal di ànd ak man dama xamee nga balakat ba man ko fa mu nekkoon dama ko fekkee xam naa ko man ma ko gis man dinaa ko xam ku njool ca sew la nii waaye du gone nag ñu laajte chef bi woo ko ni woo ko téléphone ko mu ne ah man de kooku gisuma ko woon na ma nag ne heure la la ko wax man ko ay 9h30 te lay tolloon mu ne ma ah heure boobu de kooku tàggu ma ne daa day génn waaye bu dee ne kooku nga wax moom la dëggal ba mu ñëw léegi su ah danañ ko wax ka ka may téeméer ba danañ ko laaj ka ka may téeméer ba kan la bu ko waxee léegi moom dana feeñal kooku wala moom ñu xam ne ñuy def ak moom loolu de laa tàggoog ñoom léegi ñu jël sama numéro téléphone maa ngi toog di leen hmm? loolu la ko def de. foofu lañ toll. waaw loolu la ko def de. encaissé na xaalis bi yëpp seey mu toog di ko xaar 9h ba ay midi gisu ko. na ko bàkk yàlla ñun doomi kaw kaw yi xam nañu quatre vingt mille ni mu mel ca dëkk ba. waaw. famille bay jaar ba am quatre vingt mille am ba yóbbu ko ngir faju ci. waaw. nit ku ko at <laughs> nit ku ko attana jël. Ah. nu ñu néeg nag. noo du néeg de torox la. ba pare ci hôpital yi ngay toog nit ñi feebar am soxla ñu ñëpp seen xel yi. torox la torox la pour loolu léeg-léeg nga gis nit ku dee dee gu ñaaw xëy na ndogalu yàlla du ca génn de. ay jëf ji mën na ko. ak mën na cee nekkaale. ñaaw na de moom xam na ñaaw na ñaaw na lool. déet déggoo li ma la maire bi bu ko gisoon du ko xàmmee. beneen mhm. bi beneen bi ci euh, mooy mënu ko du ko wër ba gis ko mais na toog bàyyi ko ak yàlla. Mhm. xëy na sax feebaram dana cee doxee dem mais mënul leneen lu dul loolu. Mhm. ay yéen gis nga ñetti baraba ngi yoo xam ne nax ci nit daa yomb parce que ni ñuy dundee la. hôpital. ko fa dem réer. tribunal. ku fa dem réer mhm. banque yi ku ci dugg réer mhm. c'est-à-dire seen ay terme seen ay ni ñuy dundee dafa compliqué compliqué boo xam ne yow ma ca bokk rek yaa mën a xam mhm. mais Ndiaye banque beeg ay tribunal yooyu yëpp man garaawul mën naa ko jàllale mais hôpital nit mhm. feebar xamoo ban mhm. nga naq ko yóbbu xaalisam xamoo ndax feebar boobu mën na koo rey mhm. moo tax mais nit ñi moo tax ñu war a yokk sécurité ñoo xam ne man non loolu tax ñu war a yokk ci ci hôpital bi ba pare wut ñuy circuler di xool nit ñi parce que lool loolu dafa bari de ngay gis hôpital nit ñi jaabante mais am na ñoo xam ne leneen leen indi ci biir hôpital affaire bi xoolal nite la rek gis nga ña nga saytu l'hôpital ba sax mën nañoo def naka sudul noonu mhm, ña nga indi ne sudul noonu waaw la de c'est que nit ku ñuul moo naqaree lijjanti mhm. mi ngi naa lijjanti nañ noppee rek ñu dem